aousubillahi min aseytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim inni ibadi laysa laka alayhim sultaan wala wa yaxsimuka min anas ya allah barki borom Tuuba eh, bokki jullit yi bokki taalibe yi bu ñu gisee sunu jataay bi tey eh, ñu nekk fii ci biir jumaay Cheikhul Xadim ji ñu ngi ànd ak njabootu ma Njaay Faalamin Jóob eh, di waa kër Cheikh Euh, waa kër Cheikh Omar buñ ko waxee daañu tudd sëriñ Malick Diop mi nga xam ne tey moo fi xalifa sëriñ Omar ak jëwriñam sëriñ Cheikh Maguette ak sëriñ xalifa Diop mi yor kàddoom ak mboolem dawlatu kër Cheikh Omar yëpp. Euh, ñuy sant yàlla nag di sant Cheikhna Cheikh Ahmad al Khadim ndax fii kat toogoon nañ fi daaw indi woon fi ab liggéey bu mag bu jëmoon ci jumaa ji nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne njabootu ma Ndiaye Fall ñoom ñoo koy taxawu. ngir li ñuy dajale di ko indi fii ci jumaa ji ngir jàppale ko daayira bi nga xam ne mooy taxaw liggéey Cheikhul Xadim bi loolu nag ñu sant ci suñu borom bu baax sant seexul Xadim ndax suñu waajuru màgg woo nga xam ne muy sëriñ Amdi Diop ànd ak kook sëñ Modou Habib Diop bokkoon ci jëwriñ yi nga xam ne ñoo sosoon liggéey bi euh, daan daan jëlun seen yitte jëpp def ko ci jël liggéey boobu jox ko njaboot gi ñu di ci jox ba ci ñun ñi di yëkkati suñu kàddu sax suñu waajur woowu moo nu ci joxoon ndigal ci bi ñuy jóg dem Europe ci la ñu joxoon ndigalal liggéey boobu ni ngeen ko def muy seen yitte liggéey boobu na doon seen matt ba tey liggéey boobu fenn fu ci ne dem nañ fa ba liggéey boobu euh, am nañ ci ngatandum sëriñ bu wër ndax yaatu na kon nag ñoo ngi siyaare ñëpp di wax ne nag ñoo ngi teew ak jëwriñ yi nga xam ne ñooy jëwriñi liggéey bi euh, di di di taxawu liggéey bi euh, di ko saytu muy sëriñ Alaaji Ibrahima Diop. moom Baye Amdi moom lañ toogal nii fegg moom si wetu ndeyjoor eh, ak sëriñ Mouhamadane mi nga xam ne eh, moom eh, bokk ci njabootu sëñ Mbaye Guèye sëñ Mbaye Guèye bokk ci mag ñi àndoon ak Cheikhul kon sëñ sëñ Mouhamadane yow it ñoo ngi lay siyaare te di la dalal ak sëñ Soyebu mi nga xam ne moom itam moom Baye Amdi di di magi Alhaji Ibrahima mi. moom naka jekk ci daayira bi la bokk bokk ci membre yi daan ànd ci liggéey bi waxtu wu ci nekk tey ji nag dañoo ñëw ngir indi addiya joo xam ne moo jëm ci waajal màggal gi jëm ci daayira bi eh, liggéey boobu nag kon xam naa dañuy jël kàddu gi rek jébbal ko yi di moom mi ngi xam ne moo ko doon soññee eh, ñu jébbal ko bàyyi soñ bu eh, mu yëkkate ay kàddu yoo xam ne day jëm ci cant ak ngërëm ndax day woote boo xam ne euh, biñ bi bi bi yàlla doggee liggéey bi njabootu Malaay Mandiaye Falamin xalaat ko rek euh, ba samp ko ci kër gi ngir feddalee ko laxasaayu mag ñi ngir ngir ngir ngir ngir ne day liggéey boo xam ne euh, ci la waajur yi ne woon liggéey boobu bi mu ubbee rek la ci mbooloo mi wuy si ba liggéey bi mën naa ne fi mu toll mi ngi yaatu kon Baye Sooy ñu jox la kàddu gi ginnaaw bi ngeen egsee ngir jépp jébbale liggéey boobu jëm ci wàccaay màggal gi ñu jot ndigalal sëriñ xaafiya bu sal imaam mu xamal leen ne sëriñ asan moomu moom na fi wuutu sunu sunu jëmm euh, wuutu fi kàddug daayira bi yor ko ndax it maanaam keneen ku mu fi dajaloon tamit mën nañ koo jox um, kàddu mu mu taxawu fa suñu jëmm kon tey tey jii dafa mel ne jëmmi sëriñ xaafiya lañ fi toogee ndax moo nu ci jox ndigal kon sëñ bu euh, bisimilah. bismillahi rahmaani rahim salaatu wasalaamu adada ma fi ilmillahi wa alayka ya rasulillahi aqisni sharian bi izrillahi ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyu bi sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke di nuyu sëriñ Xaafiya Buso nuyu uh, waa kër suñu war Jóob gépp ci sëriñ sëriñ Maalik mi nga xamante ni mooy xalifa sëriñ Omar sëriñ xalifa Jóob mi nga xamante ni mooy porte-parole sëriñ Omar euh, ñëpp di leen ziar waaw li ci ëppoon solo daanaka sëriñ Assane wax na ko ni ci tàmbali gi noonu rek la demee maanaam wëlbatiku rek di sant yàlla di leen sant yéen ñëpp euh, di sant yàlla di leen sant yéen ñëpp di leen gën a tàllal loxo ci liggéey bi di sant jigéen ñi ak góor ñi ak ñi nga xam ñoom lañ seqal liggéey bi ñëpp. leen gën a tàllal loxo na sant leen bu baax a baax a baax a baax ndax ñu gën a góor góorlu ba fan toll tey bu euh, moom ñu am di ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ngir euh, jaajëfal nag njabootu Mandiaye Fall Amine gépp jaajëfal tamit ñi nga xam dañoo dëgg dégg liggéey bi rek wuy si euh, ñoo ñëpp rek sant nañ leen gërëm leen di jiital nag suñu jëwriñ ji nga xam mooy jëwriñu kër gi muy sëriñ Mouhamadou Abdoulahi Diop eh, mi nga xam mooy jëwriñu kër Mandiaye Falamine ak sëñ Mandiaye Diop xasida eh, ak alaaji eh, alaaji sëriñ Modou Diop mi nga xam ne moo yor kàddu kër gi ñu santaat yàlla bu baax nag ndax sëñ Mouhamadane mi nga xam ne lañ feggal tey day koo xam ne moom damay wax ne moom ci kër gi la la la la la juddoo sax laay wax ndax moom moom dafa màggandoog ñoom àndandoog ñun ci lépp tey jii nag yàlla dogal na liggéey bi biñ ko sosee rek moom tam ci la daal di jóg jël liggéey bi yóbbu ko ci ëttu maamam muy kër sëñ Bay Géey ba ubbi na fa sellil boo xam ne tam da ko tuddee daay mu muxaddamaatul xidma bi nga xam ne ñoom ñooy saytu lu jëm ci jumaay seexul xaddim ji kon sëñ dan moom euh, kon liñ ci liñ ciy dolli rek mooy na bokk yëpp xam ne sëñ dan mii bokk na ci ñi nga xam ñooy jëwriñ ñi nga xam ne ñoo féete kawlax ci section bu Kaolack ci di di di di maamam bokkoon ci mag ñi àndoon na ku tedd ki Cheikhul nga xam ne kon képp koo xam ne laaj na loolu jëm ci jumaa ji wala mu woola ci kuréel googu nga xam ñoo fa séenee dajale ñoom itam seeni i di ko indil jumaa ji loolee ñu xam ne kon loolu ndigal la kon sëñ Mooma Dan liggéey baa ngi noonu daal ñu jox la nag ay kàddu nga yëkkati ko euh, mbooloo mi xam ne rek ñoo ko àndoon ndax koor gi itam lañ fa yóbbu liñ fi indi woon ci koor gi moom mii daa dajale ay jëfam ak jëf yi ña nga xam ne ñooy ñoo ñoo ñoo ñoo ñooy bokk yi ak jëf yi nga xam ne ñooy dëkkandoo yi ak ñi bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa bëgg a liggéeyal lislaam mu ñëw boole ko jëf yi ñu ñu ànd jébbal ko sëñaafi bu sa imaam waaw bisimilah. asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu njabootu Cheikh baabakat Guèye du ko tàmbalee ci suñu xalifa di sëriñ Fallou Guèye du ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi loolu te wér di wax rek ci turu njabootu Cheikh Babacar Guèye yëpp. muy liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu jumaa ji doon daayira Muxaddamatul Xidma doon liggéey bi nga xam ne dañ koy liggéey Sëriñ Tuubaa ci jumaa ji ah ñun nag ñu am ci laaj woo xam ne ñun njabootu Cheikh Babacar Gueye dama damaa jàpp ne maanaam taw tawfeexi Sëriñ Tuubaa la bu mu ñu boole ñu nag njaboot gi nga xam ne ñoo nekk Kaolack yépp ndax dafa bokk ci seexi Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne bés bii di 18 safar la ko Serigne Touba yenoon gaal moo ànd ak Serigne Touba bu jeewal yàlla dogal nag mu nekk ko woon foofu doon kawlak kon bu ñu ubbilee selil boo xam ne mu xadamatul xidma ñoo ñu woo ci liggéey bi ñu fas ñu see sol mbubb di ci liggéey Serigne Touba ah bu ba ñu sàngoo suuf ñi ñaan képp ku bokk ci njabootu Cheikh kër géey wala nga nekk Kaolack ñu ngi la ciy woo ci liggéey bi ndax moom. moo tëdd si suuf si nga xam ne suufi Kaolack la suufi Saalum la kon ñu nag waa Kaolack yëpp a ko bokk liggéey boobu ñu ngi koy ñu ngi ci woo waa Kaolack waa Kawoon waa Ndukumaan ñëpp ñu ngi lañ ciy woo lépp loo xam ne maanaam jumtuwaay la bu war a jëm ci jumaay Serigne Touba ji ah dinañ ko yëgle képp ku ci am yitte képp koo xam ne am nga ci eh, addiya joo ci war a joxe ah boo ñu ko joxee dinañ ko indi si jumaa ji incha allahu rabi am nañ fa ku mel ni sëñ Thierno Mbaye mu nga fa ak ñeneen ak ñeneen. dinañ àndi liggéey boobu fas yéene ko liggéey sëriñ Touba ñu ngi ziare sëñ Assane di ziare sëñ Afia Bousso bu baax a baax di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu te wér ñu ngi sant bu baax a baax a baax ci liggéey bi nga xam ne waa moo mo daayira Moukhaddamatoul ma woon nañ ñu ci di si sant yàlla di si sant sëriñ Touba ndax mbir mi sant la ndax dafa bokkoon ci ndënkaane yi nga xam ne sëriñ Touba ah, daf ko dënkoon taalibe yi kon buñ ñu wooyee ci liggéey boobu mën naa ne maanaam ah, dañ ciy jaayante daal jaay ci suñu dund kon ñu ngi sant bu baax a baax di ñaan yàlla defal ñu jàmm liggéey bi ñaan yàlla nañu si yàlla defal ndam waaw te aaral ñu ko ba dara bañ koo yàq ci daraje Serigne Touba Xaadimu Rasuul allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu tey ji ngi ci jumaa yi Touba ji ñeer indi àddee nga xam ne si ne moo leen doon dajale di ci woo doomu aadama yëpp. xam naa li ci ëpp sax sëñ soñ bu ci wax na ko ak sëñ Assane waaw kon daal macha allah ñi xam ne daal ñi leen ci doole di woo bu wér képp koo xam si ne dégg nga suñ kàddu na xam ne soñe bi yow yaa tax ñu di ko def ngir dimbale dimbale suñ bopp jërëjëf. waaw jërëjëf sëñ soñ bu jërëjëf sëñ El Hadj Ibrahima Diop sëñ Mouhamadane jëf dégg nañ kàddu yi comme noonu ko sëñ Mouhamadane waxee nag liggéey la boo xam ne. bëgg liggéey taxut nga liggéey ci sëñ Tuubaa moo lay tànnal boppam liggéeyal liggéey la ci loolu ñëpp dégg nañ sëñ Afee di ko wax ba tàyyi kon sëñ Mamadan euh, liggéey bi nga xam ne euh, tey jii demee wax waa daayira bi boole nañ la ci yaa nga ci woon naka jekk nag waaye dañ la cee joxaat ak mat ngir liggéey bi maanaam nga nga bokk ci jëwriñ ñi nga koy soññee kon loolu yéen bokk ngeen ñi sëñ Tuubaa liggéeyloo ci jumaa ji liggéey boobu nag kenn ku ne xam na ne euh, liñ fi dajale di ko indi fi ñu koy def ñëpp teg nañ ci seen bët ndax su màggal gi jub see gis nañ maanaam biir jumaa ji daayira mu xadamaat xidma da koy tàmbali ci taaral ak ci xeyal entretien lay doon boo xam ne lépp loo xam ne lu fi nekk lu ñu war a yeesal rek daayira bi da koy yeesalaat gis ngeen ko ba ci ventilateur yi ba ci maanaam karo bu dajj ko sax dañ koy defaraat mbooloo mu takk itam la daayira bi di waajal ñun ñooy ñëw fii di dale ci juróom ñaari téeméeri doomu aadama ba ci junni yoo xam ne ñooy taxaw gani seexul xadim yi màggal si ñooy ñooy jubbanti sa ñooy jubbanti lépp luñ fa war a taxaw rek daayira mbooloo moom ñoo koy taxaw tey ji daayira bi moom ñooy añal ñooñu ñoo leen di reeral ñoo leen di defal lépp daayira bi tam mooy taxaw bàq ya mooy yor armeel yi di margu bi kon nag képp koo xam ne lañ lay laaj saw ñaq dem na ci ne la wóor ni foofu lañ la koy defal te fii kat bàq bu tooy la bërëb la boo xam ne tam ku fi dàq da nga jam ndax fii la seexul xadim nekk te fii la seex na ahmad al xadim waxoon ne wax fir li man banaw bina harafi wax fir li man amaroom bii jami loolu sëñ Tuubaa moo ko nee fii képp ku fi feeñ da nga feeñ ba faw te dootoo réer waaye ku ci nëbbu tam dootoo feeñ kon nag alhamdulilah rabil alamin kon sëñ moomu dan liggéey baa ngi noonu jëf ju mag jëfoon ngeen ko ci koor gi joo xam ne bi mu egsee sëñ affaire dafa wax ne kat yéen moom euh, yéen naka jëkk yéen yéenay waa ji kon nag bu yàlla dogalee koor gi ñu ñu liggéey ci liggéey bu mel noonu màggal gi ñëw ñu liggéeyaat ci liggéey bu mel nii kon loolu jot doy naa sant seexu sa sëñ Tuubaa kon ñu gën a soññ rek te soññ nag képp koo xam ne rek maanaam dégg na liggéey bi xam ne moom njabootu moo Njaay Fall Amiin gi nga xam ñooy taxawu liggéey bi di ko soññee te di ko dajale ngir indil ko maanaam jumaa yi Seexul Xadim ji liggéey boobu ubbil nañ bunt ñëpp ndax jumaa ji lu ne lépp ñëpp kon képp koo xam ne rek bëgg ngaa jëf jëfkatu lu baax nga di liggéeyal seexul xadim liggéey boobu woonaan la ci sëñ dan tamit noonu la ko noonu la fas yéene takk laxasaay googu ngir yaatal ko kon na ñoo ngi ñaan ci barke Cheikh naa Cheikh Ahmadul Xadim suñu borom faj aaju yëpp képp ku ci jëfoon baa nga yéene ci rek yàlla dëbb la kàttan e, ba la nga yéene nga mën koo jëf te ki fi nekkal Cheikh naa Cheikh Ahmadul Xadim mu Cheikh Mamadul Muntaqa mu yàgg fi lool te ànd di ko di ko fasal taalibe yëpp nag biir réew ak bitim réew yàlla nañ ci daje nag barke waqi di xewaa ay jël lasiina daamoo fi xidmati waab lahum maaraamoo inna lasiina staaraxoon li xidmati fa lahum diyaara wasal jannati